jël sa gën a sajja ko sajja ko sajja ko sajja bi nga ko sajja dafa wàññi li nga xam ne nii mooy suuf geeg yépp soo paree nag nga dal di jël li nga xam ne nii mooy sa am tame dal di jël sa am bees ko bees ko bees ko ba nga xam ne nii yi nga bugg yëpp am nga ko ci nga dal di jël sa layu bi daf ci dee baax lool nga jël sa tame lay ko génnee calma ñàngaani yëpp nga xam ne find bi rek mooy des soo paree nag nga dal di jël nag li nga xam ne ni mooy sa ndox nekkul ne benn ndox nga raxasee findi te du ñaari ndox du ñetti ndox raxasal sa findi ndax findi si boppam la fa nekk ci suuf soo ko xaymaa dafa bari lool waaye foog rek ñuy bomba li nga xam ne ni mooy findi bi di ko bomba di ko raxas di yàq. yaag bi nga xam ne moom ngaa yaag li nga xam ne mooy findi bi dafa am solo lool si fi nga xam ne ni foofu nga ko yaagee foog ñu yaag ko dal di jël li nga xam ne mooy findi bi def ko ci indi déggal def ko ci leket leket bi soo gisee suñ jamono maam yi ñu fonkoon leket yaag baa tax ndax xam naa ne léegi kër yu bari boo fa demee doo fa gis leket waaye leket lu am solo la rawatina boo bëggee toogal li nga xam ne mooy findi ndax foog nga jël findi bi dugal ko ci ndox yaag ko yaag ko dal di génneewaat findi bi dugalaat ko ci ndox génneewaat ko si fiñ nga ko dugal noonu leket bi di ko yaag daf ci am solo lool moo tax ñu ne la foog nga yaag ko ba mu set ma dal di jël kooku noonu hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. booy ñu ngi laa déglu. mooy toog bi moom naaj si na. waaw dégg la jërëjëf. Mhm. ooy collège na. santé moom jekk na ah. santé bi jekk na maa lay lalal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <laughs> waaw. jërëjëf mhm. ak létti na. ah. létti naaj na. jërëjëf waa soo paree rek ma yóbbu fa. ah. waaw. waaw seen toogu bi dama xam. dama bëgg xam kon lan ngeen noonu. lan. toogu bi du ngeen toogu noonu dama bëgg xam lan ngeen toogu. tey ñu ngi toog a benn ci findi. findi. xam nga findi. non dama amul turu findi moo tax ma laaj ah xamuloo findi. waaw amoo findi. encore pulo. futti bu weex. ah futti bu weex. waaw. eh. boobu moom soo dee ba nga ko dugal ko ko dugal ko ci genn. <laughs> <laughs> oh loolu la. dina korete. <laughs> Eh, waa jërëjëf dama leen di nuyu rek. jërëjëf ndeysaan. rafet bi ma saxu noonu. la. maa ngi toog noonu di jàkkaarloo yow. incha allah incha allah. la laal ak ceeb bi na. waaw dama la Wow. <laughs> <laughs> Oh, okay, ciao, ciao. You're a genius, Sam. sama mbokki Pël Fuuta boobu noonu nag moom benn cin ba ko si jaaxaloon dafa foogoo ne xanaa benn ci ni lii la waaye futi la mooy comme findoo ni soosey di wax na findoo bi tamit findoo la ñu daal di ko toogare ci tooga bu am solo ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii ci Gambia Radio and Television Services saa su nekk suñ fi toogee mbégte ak kontante lañ fee toogee waaye li nga xam ne moom lañ fee toogee dafa am solo lool di jàppale jeeg ñi rek ci biir kër bi wax naa leen ne jeeg ñi yéen si seen bopp yéen dafa am foo leen toll ci man ba tax na fi ngeen toll ci man saa su nekk rek dama dal di def ba mu baax waaye naka laay dal di defe ba baax mooy di leen indi yéen li nga xam ne ni da ngeen see jëriñu ba tax na ni ma leen ko de faral di waxee lu waañ bi tànga tànga foog ma àndaa yéen ci biir waañ bi seet li nekk si biir waañ bi indi leen ko ma dal di jël kooku noonu ci line bi hello asalaamaaleykum hello waaw kookan la waaw sa jabar naka la tudda Yacine Sagnang. waaw Yacine jox naa ko keem bi man keem bi laa ko jox. Laadu. <laughs> ok bye bye. nga ma Yacine bu baax a baax a baax. all right ndeysaan di bëggee kooku noonu dégg ngeen ko mu ne jabaram la koo may di Yacine Sagnang di ko si ñaanal di koy wax ne rek na man jox naa ko si ger bi yëpp di leen si bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan waaye saa su nekk suma bëggee dama bëggee suñ bi ndax wax naa leen ko duma ci fàtte waa kootu police station ñoom ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi seetaan ñoom itamit ma di leen ci bëggee bu baax a baax a baax di bëggee nag police wéri nga rey bu baax waaye nag di jal di jël nag kooku noonu ci laayam bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum asalaamaaleykum. baam jeen waaw ku kan la. yaa ngi naaj. la. man la Ibou Samb. waaw yow rek la ñoo déglu. man la rek man Aysatu Jobaate bi. Aysatu. Jobaate. Eh, Aysatu Jobaate. doomi Sanjaal bi. waaw waaw waaw waaw. yaa ngi naaj. jërëjëf. kii sama gàllankoor nga rek. <laughs> programme bi nee na trop. jërëgeen jëf jërëgeen jëf. ma yaa mu laa nuyu Sanjaal nuyul ma Sanjaali bu baax a baax a baax. ak ay sotu jobaate. nga nuyul ma ñoom ay soo ñëpp ndeysaan maa ngi leen di nuyu. Hmm. waaw ak ak ay jobaate nuyu. ma ñoom Adja ana Efo Sambu. maa maa nekk di waxaa yow. ah Efo. si loo nekk ah? maa ngi nii rek xanaa programme bi neexee. waaye dama bëgg a Sanjaali mu tooga ko mu invite ma. waaw nawet na ko soog a gëm baax. mu def ko gën kawe yaa ngi lay. jërëjëf. suma dëkkandoo yi lañ nekk foofu noonu ca wéri ngara sa njaali mbekkoon toog la bàkke bàkke bàkke waato ma bu ka jee bari waato waato rek na gis na na gisoo ba <laughs> itteele na yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan si programme bi bakku bi saa su nekk su ma fi toogee damaa am bégte ak kontaante yéen soosay wax naa leen ne saa su nekk rek dama dama leen di bégee ndax wax naa leen dama koo mun làkk bi laay mun bu baax ma daal di jël kooku noonu ci laaj bi hello asalaamaaleykum. hello. hello salaam. waaw mari la mari mari mujje allo naam aha foog ngeen wàññi télévision hello hello hello wa maa ngi lay dégg waaw maa ngi laa dégg léegi yaa ngi nice jërëjëf jërëjëf waaye tey la man la mari mujje am tey lan nga jàng ci tooga bi tey lan nga jàng ci tooga bi kami moom neex na trop maa ngi koy yëkkal suma jëkkër yëpp. waaw meeloo ko ndaay yëpp bàyyi ma kenn. dëgg la dëgg la. naa ngi nay trop la. jërëjëf jërëjëf. maa ngi ciy yëkkal daal yi àggal teer. waaw ñoom maam ñoom Aliou Faye ñoom ñu ba nekk ñoom maa leen ciy yëkkal. ñoom Badou. fàtte woo kenn. jërëjëf. huile huile bi. ok. allo ah, di bëggee ko